mas naa ñëw mas naa ñëw ma góorgóorlu ba jënd sama oto di daw daal di ñëw droite waa xool ba ci yàlla saa na ngeen def waaw waaw sa oto bi tuuti na de mën bu dafa oto bi dafa tuuti quoi tuuti te man oto bi maa ngi ci fier <laughs> daa kontaan parce que li tax ma kontaan maa ngi sant yàlla bu ma rombee ci nit ñi ñoo xam ni gënuma leen ñi ngi taxaw di xaar oto waaw man sunu borom wërsëgal leen ma loo xamante ni bi sooy maa ngi déplacé di dem ma am ci mbégte goo xam ne mbégte gu rëy mu bëgg ma koo xeebal te moom mi ba koy xeebal amut pono waaw dëgg la <laughs> yaa ngi dégg eh saa yi war ngaa am lu ëpp lii yaa ngi dégg alaaj loolu moom gaa dañ koo tàmm damay jàpp ne moom lii daal li ma war a am daal ngi nii am naa ko waaye war ngaa am lu ëpp lii daal lii ma war a am mm. mi ngi nii mooy li ma am lii daal point six bi man doo mën naa fi ni di jël taxi kon waaw saa kon yaa ngi ci kii ba léegi dama la wuti oto nag gaa yi wutalaguñ la oto voilà fii ci romb dégg nga loolu la ñuy wax de gaa yi wutalaguñ la gaa yi wutalaguñ la oto saa yewit nag parce que réew mi moo nekk war ngaa dépassé lii de mm, gaa yi wutalaguñ la <laughs> donc léegi dafa jàpp ni gaa yi la war a wutal waaw gaayan da nga ko war a wax gaayan nga dëgg de yan gaa léegi Youssou bu bëggee jubbanti kër gi du tas kër gi. kër gi mënu koo jubbanti xaalis rek wuti xaalis ñëw. <laughs> kër gi xaalis ko tax taxawal. kër gi taxawut ci ay idée ay ngëm-ngëm ak ay kii maanaam ñi bëgg xaalis ana ngeen ñu ne ñoo ngi mu ne ñëw leen ma jox leen xaalis. kon kër gi bu fa xaalis amatul kër ga tas. ah du ngëm-ngëm du ay. kon ay wax mënu ko defar déedéet lan moo koy defar du loolu yëpp de. du hmm? lool de waaw. xaalis ko taxawal xaalis ko peut-être que li taxawal super étoile. ah mën na nekk ay yëg-yëg ak affaire yooyu oh. kii loolu mën na ne mais bi muy taxawal TFM taxawalewu ko ni muy taxawalee euh, Super Étoile hmm. fii ay nit leen xaalis baa ngi bëgg ngeen xaalis ñëw leen ah, gars yi ñëw bu fa xaalis nekkatul gars yi dañuy dem seen mbokk ñoo leen a demal fee xaalis leen fay indi de ñëpp xaalis ay ngëm-ngëm ak ay kii ak yooyu yëpp mën na ne bu ñu doon daal pour mu taxawal ko na jëm wuti xaalis ñëw toog kon amul y'a pas ah, de discours amul leneen de amul leneen ah, ah, de. amul leneen de amul fa xaar li ko mais suñu waaj nag moom dafa war a dellu ñun dañoo namu temps booy de. Hmm? Hmm? Sidaat dafa war a dellu ko dañoo kan. waxal ak Babacar. waa léegi ñun duñ kañ la fay dem. Hmm? Assane ngay recevoir ni Assane mu un problème moom. waaw léegi léegi ñun léegi li ñun nañ ko préparé ñun ñu dem ci Assane Gueye. Babacar kay xaw a xaw a a. non non léegi ñu garaawul nañ ci ñu ñu dem après Sida dellu parce que ñun dañoo nam ay temps booy ay lamu saf. yooyu dañ ko nam. waaw ah, mi kat day xeex te pareegul. non après ñun ñu wax ak Sida <laughs> buñ pare dañuy wax way ñu wax <laughs> ñuy wax ak suñu doomu nay ni ko nag léegi. Ah. comme comme dimbali nga ñu léegi ba lii am léegi yow dimbali ñu bàyyi ñu xeex bi léegi. Hmm. léegi loo war a bàyyil ñu kaas la bay peex waxoon waa ji mënu wax waaye ku ma ko waxal ma jël ku ma ko <laughs> aywa jërëjëf euh, nuyu nga ne waa ji lim la wax sa oto bi tuuti na waaw hmm. boobu kii laa yoroon nag boobu kii laa yoroon nu mu tuddati déedéet oto boobu laa yoroon waaye C3 405 donc suñu as de kii la waaye waaye R5 R5 mooy R5 waaw R5 <laughs> <laughs> amul maal Modou ana R5. non R5 bi r waxal Modou bu génneel R5. Modou moo R5 bi loo ci xamul. R5 bi damay jaar autoroute pono yi bëgg a. <laughs> alors pare nga kontaan ci lool. <laughs> kontaan trop. yow nga ne R5 amul euh, maal R5 daanaka day day tuuti moo tax. <laughs> R5 oto tuuti. porte lay doon wala. maal bi non boobu quatre porte la xar si maal bi mu fees. dal ah, day fees est-ce que xar xaj na sax. ngaa fi ah, la ala mi ngi. waaw R5 kooku. ah pour alaaj ah. hmm, ah, bi gudd na de. boobu quatre portes waa ji lii nag de. waru la koo bi gudd na nag R5 bu giri. <laughs> boobu maa ngi jóge ci scooter. Hmm. daal de loolu daal de damm. ñëw di dawal r cinq mu ma koy xeebal ma ne ah, waaw waaw bii mooy deux portes la. ah comme bii loolu alaay. bii de oto mbott tuut la ko ëppee. bu giri tuut la ëppee oto mbott. waaw ah, bi de xar est xar <laughs> xar moom duggee kontaan sa xol bi sedd guy. waaw sedd guy wax dëgg yàlla. <laughs> sedd moom xol sedd ah bi jur gi waaw. waaw. <laughs> damay kontaan. léegi ba nga fa jógee découragé ah ba nga fa jógee découragé découragé ma parce que dama xam ni bon kii lii nga tolloo lii mu may xeebal nii man dama cee bég yow lii nga tolloo loolu ah, daal sant yàlla waaw mooy li Seydi waxoon ak a tuuti mu ne ak a leew ah oui dama day sedd oh. sama xol da cee sedd guy lii yaa sa bopp nga xam ni lii macha allah maa ko moomal sama bopp quoi mm. ay ca am na solo jërëjëf Alaaji Sanjoogu Mbeng xam naa ni loolu dina dinañoo ko defaral muy ab kii Sanjoogu R5 ba <laughs> looy looy tàggoo